Jungle. Auzubillah bismillah inna waliyallah barkeb Serigne Touba asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi Serigne Mbacke daal ndongo yi mooy dellu si fi rek nuyu di sant baax ki nga xam ne moo ñu dégg wax dénk wax waxukaay gi di Baol Média muy di muy ab taalibe di ab soppe bokk ci kër gi loo mel ni bu amee rek mu ñëw ak taxawaay bu ta bu pëstéefu ba jël ko nu mucc ci ayib génne ko monde bépp di ko seetaan loolu ñu ngi ko ciy jaajëfal di ñaan yàlla liggéeyam bi fépp foo xam ne bëgg na mu egg fa rek yalla na saa def mu egg fu kawe njort loole mu mel ne rek bis bi la ñuy del si comme ni ko mbokki taalibe yi jàll waxee rek bis bi. dafa toll noo xam ne yéeme na eh, te it ku ne xam na ne ba weeri teroo ba léegi sii képp kuy wuyoo jaw rawatina maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci dawaay yi ak groupe yi nelawatoo guddi nelawatoo bëccëg ndax ñi ngi riñoo guddi di riñoo bëccëg ci biir yi nga xam ne moo lëkkale bis bi ngir mu jag li nga xam ne moo tàmbalee biir Touba ba ci biir Afrique gépp ba ci Europe maanaam mën naa ne international bi mboolem fu taalibe nekk di wuyoo jaw bis bi dalaa jaraloon nga ciy wax guddi di ci wax bëccëg di jef sa doole di def sa alal rawati nag fédération bu Touba bii nga xam ne weer yi bi mu teroo ba léegi waxuma la nelaw ak yeewu waaye liggéey sax defatuñ ko waaye nag bis bi jaralu ko te bis jaraloon nañu loo xam ne bu ko maanaam leneen leneen lu ko teewoon a mel nii dañ cee dañoo jaayante woon suñu bakkan lañ ci teg ndax bëggu sëñ bi faaw mu am bu amul nag suñu bakkan la ñuy teg te bis wax dëgg yàlla ko gis ni mu mel nii mu yembe ni mu jage nga xam ne mbir la mbir ma nag mooy heure boo gisee mburu mu tàng jër yàlla boo sant sek di xoyum xoyum day rafet lool waaye buñ la wanee weñ weñ nga ko lakk xaw naa dee kon ñi nga xam ne ñoolal lal guddi gi ànd ak baaxuk sëriñ bi ba bis bi demee nii ñu leen sant baax a baax di jiital suñu jëwriñ sëñ Mbàkke Sëy ak ñi mu ko àndal ñëpp sëñ Njaga ak ñi mu ko àndal ñëpp sëñ Mbàkke ak ñi ko àndal ñëpp bayuñ kenn mu mel ne sëriñ bi tey ku xam ne ku ko gis tey jii xolam sedd na guyu muy sëñ Cheikh Diaw Mansour sëriñ Mouhamadou Moustapha xolam sedd na guyy ndax bis bi nii mu demee waaye nag mbirum bàyyi sëriñ moo demee noonu li yëpp bàyyi sëriñ moo ko fag woon ndax ku ne xam na ne liggéeyu mag gone mënu ko yàq bàyyi sëriñ fa mu tegoon tànkam fa mu sumee woon dàll wa fa la ko tedd kii sëriñ Cheikh Diaw Mansour solee dal ma waaye mbooleem lu fi bàyyi sëriñ bàyyi woon sëriñ Cheikh Diaw Mansour mii ful na ko ak rakkam ful mooy lan benn bu ne def na ko junni ko gis kër gi ni muy demee ak ni muy doxe nga xam ne doxin wi mbirum baatin la mbirum sëriñ bi la ndax la Cheikh Mansour liggéeyoon ba am gërëmal sëriñ Touba sëriñ Mouhamadou Moustapha teg loxo bu tedd ba ca bopp bàyyi sëriñ ne ko ndax yàlla rus ma ci loolee noonee mooy dox ba fi ñu toll nii saa su ne ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay ay nekk ci liggéey bi mbir mi day kawe suñ jot lool fuñ ko takk da koy weesu waaye loolu nag jàmbaaru xale yi la ak baaxu sëriñ bi waaye mbir mi baatin da koo lal baatin da ndax boo xoolee gone yi ko ŋànk amul ku ci am ñaar fukki at gone yu ndaw kenn sëqu ci bee jaaw koo ci xool da nga mën kër nga coordonné bis bu tol nii mu jege nii loolu mbirum baatin la waaye bay sa njëw dafa waajaloo ndaw ñi dafa waajaloo ndaw ñi ba xool ñu ne lépp loo xam ne mooy jumtukaay yi ñu koy soxla ci kër gi na ngeen ko jàng ba ci daw lelo kon loolee ndaw ñi jàng nañ ko te xam nañ ko ndax bànqaas boo dugg rek bu ñu soxla ci adduna bay seen jëw am na ca loo xam ne doy na ko sëkk muy ci alxuraan muy ci xasiida muy ci yëkkati xasiida muy ci durus muy ci média muy ci ferraille muy ci mason muy ci mooleur loo mën a tudd téyër loo man a tudd loo xam ne nit da koy jëfandikoo fii ci adduna bàyyi seen jëw na ci waaja waajale ci ay ndaw ba fi mu toll nii bu ko bëggee am na ci kër gi mën nañ ko kon ñi ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla bàyyi sëriñ yàlla yokki leeram taasu ci barkeem ku tedd kii ko fi woot di sëñ Cheikh Dioma Tour yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér léegi laa koy wax nee naa ko bàyyi sëriñ Jaw mi ngi sa kanam mi ngi sa gannaaw ku la te egg du egg ku la gàllankoor gàllankooru wasalaamu aleykum wa